jërë ngeen jëf di rafetlu ànd bi Equivox TV ginnaaw bi ñu leen nuyoo dalee nag jàmm ci xibaar yi ñu koy dooree tey rek bopp coronavirus ci talaata bi ci 1515 tests yi ñu jot a réalisé rek moo ciy jot a positif ci 133 yooyu am na ci 36 cas contact 97 cas communautaire ak 10 décès. ba tey rek ñuy des rek ci wopp ba coronavirus fële université Cheikh Anta Diop nag lañ fa nemmeeku mooy ñaari ndongo rek ñoo fa daal di am boobule virus ca euh, ca faculté ba ñuy wax rek école supérieure polytechnique bu université Cheikh ante Diop de Dakar ñi nga xam ne nag mooy ñaari ndongo yooyu ñu ngi fële rek. ca hôpital ya nekk ca boobule université rek ngir ñu saytu seeni i gi yaram ba tey nag classe ba nga xam ne rek fa la ndongo yooyu nekkoon na ñu ngay continuer seeni i waaye rek dañ koy def en ligne ba tey rek ndongo yooyu ba ñu amee li nga xam ne moo di virus ba rek arrêté ñu cours yi waaye dañoo daal di continuer cours yi rek di ko def en ligne maanaam seen kër yi rek la ñuy toog di suivre cours yi couvre-feu bu duppee rek ci état d'urgence ginnaaw nag bi ñu jeexalee rek juróom-ñett fan yi nga xam ne rek ñii leen di gouvernement bi jëloon nañ ndogal ñuy xaarandi tey rek ndogal yu bees tey ci talaata bi ba tey rek euh, ñu desandi ci couvre-feu boobu rek euh, ña yeewoo fële ca banlieue ba ñenn nag ca quartier ya nga xam ne rek seeni loxo jotul ginnaaw ñu ngay woote wallu rek ndax nag sonn nañ lool ci xiif gi ndaxte heure ba nga xam ne rek dañ ko daan génn rek di ci jënd lekk heure boobu mënatuñ caa génn ba tax na rek fi mu toll nii xiif ba sonal na leen trop ñuy wootu wal ñuy woote wallu ngir gouvernement bi daal leen rek euh, dimbali ñu àddu rek wax ci mbirum jaari Sow moom nag nege ni démb bañ yëgle ne rek mu ngi ci diggante loxo ba nguur bi liñ xamlewaat rek mooy jaari sow ci réeram boobu rek fam nekkoon na moo di Bruxelles ab otel la fa joloon hôtel boo xam ne rek guddi gu nekk rek mu ngi doon fay lu tolloog 100 euro maanaam fukki junni ak ñett rek ci suñuy koppar ci noonu nag jaari sow ba mu demee rek ba sama di gën a wàññeeku ca lëkkite la hôtel rek dem jël benn résidence ci noonu rek euh, la xaalis bi gën a wàññeeku mu dem rek ba mënatul résister ci la dem nag ci benn kër goo xam ne rek ñoo ko daal di accueillir ba pression bi bëree nag ci moom ñëw ñu nga xam ne rek ñoo ko dalaloon ñoo ko daal di wax ne rek jaari génnal wax ak askan wi ndaxte sonn nañu lool ci noonu rek la daal di bind lettre boobu rek mu bind kii di parrain am Serigne Mbaye Thiam di dem rek ba fële ca Rufisque jee ba fa am nag di lu doy ki nga xam ne nag moo di Hortense a nekk nag jigéen boo xam ne dafa nekkoon rek ci néegu sëy ba pare am far moo nekk ak faram rek ba daal di jëlee ca ëmb doom daal di ju juddu ca ca juddu nag li ko Hortense def rek mooy daal di xoj ko ba mu dee rek sànni ko ci armeelu Rufisque ya ba mu ko sànnee rek xaj yi daal di ñëw rek fekk fa xale ba daal di ko euh, saax saaxee ci noonu rek. kii di Hortense li mu xamle woon mooy dafa ragaloon rek euh, ñi nga xam ne ñoo di population bi daal di am benn jugement ci moom bam mu def euh, boobule ñaawteef fi ñuy wax ak yéen nag kii di Hortense Sagna mu ngi fële ca chambre criminelle de Dakar ngir rek wax ci mbir mu bon boobu xam ne rek def na ko. ñu àddu rek wax ci américain bi nga xam ne rek euh, reyoon nañ ko fële rek ca Kaolack kawoon ki defoon bile ñaawteef nag di Abdel daal dina faatu nege ni démb ca prison ba nga xam ne rek fa la nekkoon moo di kii di Abdel da doon daw ca prison ba na muy dawee rek euh, ca la garde daal di génn rek ngir kar ko ba ñu génnee rek euh, kii di Abdel daal di mbëkk miir bi rek ba far fa faat ci fàttali rek ki nga xam ne moo di Mohamed Cissé ñu ngi ko faatoon ci weerum janvier fële rek euh, ca këram googu nga xam ne mu nga nekkoon kawoon Kaolack ñu àddu rek dem fële ca tribunal grande instance bu Dakar la fa xew nag aw tiis la ginnaaw kii di maître Omar Diallo daal crise ba def fa crise ci noonu rek euh, lañ ko jël rek dugal ci woto di yóbbu hôpital ci yoon ba rek mu daal di euh, ñàkk bakkanam kii di metre Omar Diallo nag ñu ràññeek woon trop ci liggéeyam ba ren sax rek moo nekkoon fukki at ak juróom ñaar ci bërëbu liggéeyukaay boobu nga xam ne rek fa la nekkoon jërë ngeen jëf mbokk téléspectateur Equivox TV fi la ñuy yem ak yéen rek ba ëllëg incha allah